fii nag de róor gii moo gën a rëy ruus na trop lii hmm. waaw dafa ruus li ngeen photo yi ma leen yónnee tubaab boobu ak waa ji tubaab bi belge la Thiès la nekk sa yëg benn waay depuis 2011 tabax kër hmm. dugal fa waa hmm. waaye daal ci diggante boori màggal gi ak yooyu xama booli màggal boori màggal gi ba tey gii il paraît daal am na benn xuloo bu am diggante waa ji ak belge bi ndaw si ci boppam belge bi ci boppam koñ bi ñëpp ko xam. Mhm. kuy dugal loxoom la ci koñ beeg école koñ beeg ñoom seen ba tax na ñëpp xam social. waaw mhm. dañoo jékki-jékki kenn gisatu ko. Mhm. waa koñ ba waxee waa koñ ba nag dañoo njort ni daal dañ koo sàkkal pexe. waajee ko rey. waaw loolu waa koñ bi. loolu la waa koñ bi njort loolu. wa waaw waaye boobu ba léegi nag màggal ba léegi. kenn xamul maire bi fu mu ne. te amuñu ci lenn lu leen leer. amuñu ci lenn lu leen leer waaje nag jël na ay waaje avant. mu ndaw avant nga egg foofu histoire bu sànq bi doo ko mën a de. waaw kii nee na moom. meilleure copine am la présenté papam papa ji yóbbu di ko doxaan ba di ko vidéo. foofu amul danger de. waaw ah, foofu daara ah. am na xol meilleure copine ba am na xol. bu ah, doon sax dafa ni sama far bu doon dafa ni sama far wala sama jëkkër la foofu amul danger de. félicité papa waxal baax la. seen baay la na xale yi respecté seen baay. mais rejet ngi toog ah. Ah, ana supporter yi. <laughs> Ah. est-ce que foofu am na dansé. ayca kon nañ dem ci. est-ce que vous êtes là. <laughs> jërëjëf lii nga may laaj sawar naa cee wax ndaxte belge boobu booba ngay wax chose lañ koy wax sama xarit la ñun ñoo doon ànd moom daal yàlla damaa booleeg moom ba tax. lu ci bari daal xaw nañ cee sore lu taxaw cee xóot. lu ko. maag moom ànd nañu marché samedi. mu daal di ndugg nduggam ñu ñëw mu dem këram dimanche bi nag ay vers neuf heures ba dix heures et mu daal di may woo mu ne ma yaasin loo jàppoon bàyyil nga ñëw nga ñëw sama kër léegi léegi léegi man nag dajji na sama coffre-fort bàyyi lu ma dara du këyit du lenn loo koy xam ne bii bàyyee na ko. mooy jëkkër ji. mooy jëkkër ji. moom Sénégal la fii la dëkk la. ngeen sa dëkk. foofu foofu mu ne ma loo jàppoon bàyyil ko. ngay ñëw léegi léegi dafa am lu ma lay wax ak lu ma lay wan ndax moom dama ko woo ma ne ko dellusil ma samay bagage moo daal di ma ne du du moom ndax maag moom ñun ñoo ne ci biir néeg bi kon keneen ma mënta jóge fa lay ñëw jël samay bagage ma ne ba ma demee fekk naa kay oto jëkkër ji soo ko gaare wax dëgg yàlla du lu muy daal daf maa woo léegi man ma daal di dem mais moom ndaw si bi may woo soose baat baa ngi lox baat baa ngi gën a suufee ndax moom su xesee mer rek kàddoom dafay wàcc ñu ne ma eh, demal kon ma dem ak sama waaxu fekk tamit oto jëkk xam nga oto tànk xeej na lu du benn xaw ma nag lu ñu waxante ci diggante bi ndax menace am na ci ba ndaw si tiit daal di may woo xam naa ne daal bi may woo fekk xam naa ne kay toolam tàng na mer na tiit na parce que dafa ma ne je suis en danger. kër gi bi nga ñëwee fekkoo ko ci kër gi. Euh, mën naa ne fekk naa ko ci biir kër gi parce que fekk oto ma ngi soog a gaare même que portière du kii bi ndejoor bi vitrine bi yéegal lu ko dégg naa baatu jëkkër yi ci biir kër gi moom lu foor wax dëgg yàlla ndaw si mënumaa dégg baatam ndax baatam dafa suufe waaye nag soneen eh, ma fëgg-fëgg buntu kër gi ci ji gëma gisee xëy na man ñaaw ma njort ndax waa ji dafa léegi jabaram ma nga ca biir kër ga ak juróom benn doomam moom bi mu takkee tubaab bi da ko tubaab bi du moo ko jëndal kër gi mu nekk kër gi fii tubaab bee moo ko moom mais kër gii nekk fii Thiès na indi fi jabarama ci doomam José moo ko moom kii berger bi yàgg nañ fee dëkk jabaram da ko ngent nekkoon ba ci mois de juin bi la ko nax sax nax parce la mu ko wax lépp dara amu ci daf koo ne seen kër ga dafa bëri coow bëri kay kii xeex cousin bi nekk ci biir kër ga c'est un drogué dafay màndi ñëw te moom ay doomam yi jigéen lañu jànk lañu da leen di dóor da leen di def lu ci nekk ak jabaram ak ñépp ba tax ñoom amuñu jàmm te gannaaw nag moom doomam yi ay doom yu kii kii la jànk lañ moom moo tax dafa bëggoon rek mu ñëw quelque temps moom ci boppam xelam dellu dellusiwaat moom moo xam ne lu mooy defee lii moom moom moo tax tubaab wax dëgg yàlla ko laa biir ku xam ak doomu aadama la hmm? li luusul ndànk de suba li ngeen dégg témoignage yu ndaw si ñu suñ ko eggalee lijjanti nañu ba xam waa ji ca boppam ba jokkoog waa ji ba interview koo pare pour mu joxe version lii nag Cheikh Anta ca boppam moo koy topp foofa ca Thiès man maa ngi topp waa ji waa ji waxtaan nañu wax na ma li ci ne waa ji daal jël na jabaram jëli ko kër papaam ak yaayam indi ko kër ndaw si nee na ma ndaw see ni ko indil sa famille fii ndaw si femme bii de wax nee na pa mère bi waxu ko loolu parce que waa ji moo jékki-jékki indi njabootam foofu la ci xew ni ko nag ñëwal ci kër gi gaaw parce que je suis en danger hmm? sama jëkkër dajji na ko foofu kër gi yëpp man daal mbir mi luus na luus goo xam ne fi ñu nii mooy actualité fële ca Thiès. ak ci Sénégal yëpp kay. comme jàll na xalaas waaw taw lu rëy taw lu rëy waaw. Aba Aba. <laughs> yow avant nekkul ci bii de ci bi ma ko jox ci suuf ci la ne. boobu kay laa bëgg mu ñëw euh, mais Ndiaye xaw ma na lañuy def ba boobu ñëw boobu moom mënu ma ko jox. ndaay boobu moom li mu yàq ëpp li muy def boobu moom. mais li xew ci làmb ji yéen du ngeen ko wax. lamb laa la wax bu ci bu ci kii lamb ja kon du ci lamb ji mais ñu nekk ci lamb ji ñu nekk ci lamb ji mais loolu li muy yàq ëpp li muy defal waaw duma ko wax ah lan moo tax du ngeen ko wax te muy xalaas rek déjà arène bi mi ngi deux appui boo bëggee boo ko waxee quatre appui mais bu dee acteuru lamb yi am na ñoo ñu ngi ci noo ci ah, loo xam sa waay réew mi dañ ko war xam yéen lu du ngeen ko wax man je comprends plus xalaas man nekkuma fi de man je comprends eh kii Sadio Mané su absenté eh, wala mu bañ kan eh, eh. ya. kan? a jouer kan moo koy remplacer Liverpool waaw non non fee si club bi waaw ah, non non bu toogee wala dara euh, am na booy bu ñu woo pour jéego jotaa eh jéego jotaa kaay toog nii man maa ngi dem waaw